waaw béti tey Laurent Mendy lañ indi lañ indi tey parce que dañoo am ay événement Laurent ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii suñu plateau. merci beaucoup maa ngi nuyu yéen ñëpp ku nekk seen tur ak seen sant. Mhm. waaw comme ni ñu ko xamee c'est Laurent Mendy représentant de Fight Agence yi. Fight Agence yi. Ah, ah. waaye Fight Agence yi mu nekk agence MMA. MMA voilà parce que monde sport dafa évoluer dafa am aujourd'hui des organisations privées am ñoo xam ne aussi comme benn société nga ubbi ko nga ne man damay jël samay activités ma def ko ci mix martial mais dañuy dem euh, dañuy dem ak régie comme ça ñu xool yenn vidéo ñu ñëw parce que ñoom dañoo am ay compétition yu ñu dem léegi ñu ñëw ñu waxtaan ak ci plateau waaw non comme mooy loolu dañ koy defal bagage béti moo ngi noonu euh, ñoom da ngeen am ay combattant yu yu génn. waaw actuellement am nañu combattant bu génn. Mhm. ànd ak aussi beneen combattant. Mhm. Demba Seck ñëwoon na fi. waaw ah, Demba Seck ñëwoon na fi voilà moom moo ko nar a coacher fële ci Abu Dhabi. combattant bi kan la. combattant bi mi ngi tudd Babacar Niang. mi ngi war a def euh, quatrième combat professionnel. professionnel voilà mu ngi koy defee UAE Warriors. l'une des plus grandes organisations aussi au monde. léegi fii euh, Sénégal MMA MMA c'est waaw boobu Bombardier man ah man foog naa ak non foog naa MMA bi nag bu mu si làmb ji kum kum kum jàkkaarloo nga nga nga dem tey vraiment. léegi Bombardier moom ñoom si ñoom combat yi def euh, Sénégal euh, combat yi nan lay demee ak euh, c'est reconnu est-ce voilà bu dee le MMA. waaw amaguñu fii benn texte boo xam ne mun nañ ne MMA reconnaître nañ ko au Sénégal. Hmm. bien que ñu ngi koy def. c'est la même chose aussi si yeneen dëkk yi. MMA France est-ce que légalisé na procédure France France léegi légalisé na ko voilà début bi légalisé wuñu ko woon mais tudd nañ ko génne nañ nee nañ li yëg lii la ñu nangu li yëg lii nanguwuñu ko ah. mais si li yëg lii nanguwuñu ko bi nga xam ne MMA nanguwuñu ko. léegi ba ñu demee après nangu nañ ko avec encadré les armations mixtes ba génne loo xam ne tey moom nga war a topp ba nekk coach armation. kon dañ ko dañ ko dañ koo defaraat par rapport ak daa am lu ñu defaraat ci biir wala daa am lu ñu wàññi wala daa am yeneen règlement yu teg pour man koo nangu wala Sénégal aussi pour ñoo dem ci domaine boobu kon. oui Sénégal war nañu mën a dem ci domaine boobu mais lépp ça commence par la législation. même yow bu dee yaa ngi si benn dëkk nga organiser wu sax ñu reconnaître la au niveau international comme benn fédération reconnaître la au niveau international comme moom fédération internationale de mixte martial art mm-hmm. mais sa dëkk bu dee nangu ko zéro lay doon. foog dëkk bi nangu ko. mais Sénégal amuñu benn texte buy wane ne le mixte martial art est légalisé. Ah. léegi fédération la parce que boo gisee comme Bombardier mi saa wax ni. Mm-hmm. ñoom jaar ñu si ay waaw parce que ñoom jaar ñu <laughs> léegi il faut il faut que ñu mun a def différence entre lu ñu naan kuy xeex amateur ak koo xam ne moom mooy xeex professionnel. daa mel ni nga nekk école rek di jàng. xam nga dangay jàng école daa am si loo nekk. mais am na foo xam ne boo fa tollee aussi dangay dem nga tu liggéey nga dugg si dara comme noonu. voilà léegi professionnel bi. kooku dafa jëlee activité mu ne man tey sport dama ko def comme liggéey. Mm-hmm. xaw ma ndax yaa ngi may dégg kooku nekkul benn fédération moo koy encadré nekkul lenn léegi dafa am loo xam ne moom mooy ay compétition moo tax muy nekk ci agence comme ni ñu nekkee nii ci agence léegi moom ci ay contrat lay dox moom ci boppam professionnel bi dafa signé contrat boo xam ne dafa ne man dama nekk ci agence bi agence bi ne ko man ni ak nii laay liggéeyee moom mu ne nangu naa liggéeyee compétition su amee aussi voilà léegi nag boo xoolee Sénégal man gisagum fi boo xam ne agence la mu nekk benn agence privée mais comme ñun on travaille avec voilà waaw ñun on travaille avec Fight Agency France Fight Agency se trouve en France non se trouve en France voilà mais fii voilà nous nous nous avons signé benn contrat boo xam ne c'est entre nous ak beneen léegi loolu moom xam naa du ma si dugg mais dina laal loo xam ne lu ñu naan le droit privé international non mun naa si dugg day laal lu ñu naan voilà dina laal loo xam ne dina toucher loo xam ne le droit privé international mm-hmm. parce que xam nañ ne tey monde bi dafa am lu ñu naan tey benn village planétaire mooy da ngay nekk fii sax di liggéey koo xam ne dafa nekk Europe mais da ngeen di liggéey mm-hmm. si loo xam ne moom mooy contrat mais combattant yi ci voilà contrat yi Sénégal si turu non si turu Sénégal la ñuy def waaw ils sont des sénégalais. man non je sais nga nekk ay sénégalais. mais uh-huh. sport mm-hmm. nekk sax di daw pour Angleterre. moo tax ma ne la foog nga def différence entre kuy xeex professionnel. ak kuy xeex amateur léegi ñëwal ci pro yi waaw. pro. Mm. ma ne la yow mun nga toog sa activité professionnel la. Mm-hmm. comprendre nga amul kenn koo xam ne moom moo la tënk à part agence bi ngay liggéeyal te agence bi c' est une structure privée. boo ko la koo xam ne dafa nekk si fédération. fédération on sait que état moom moo ko yor bien que état da koy jox doole mais état moom moo ko yor koo xam ne képp dafa bokk ci fédération kooku amateur la mais ñun nous sommes des professionnels. waaw mais man bëgg naa nga taxawaat tuuti ci sa fight si bi nga wax. da nga ni France la ne. voilà mais fii da ngeen ko da ngeen fi am ay bureau wala dangeen fi am ay structure wala lan nan la demee. fii Sénégal voilà merci maa internet intermédiaire alam tey mënoon nañ maa otal ba dugal ma ci biir uh-huh. boole maag benn waay fële comprendre loolu la léegi foofu noonu pour ma ah. expliquer bu gën a gaaw donc <laughs> combattant boo pour xeex dama ah. lay jox euh, exemple comme Demba hmm. moom moom pare na pour euh, xeex MMA moom mun na contacter fight agence yi mu contacter ko France la nekk foofu mooy baas bi mu ne ko dama bëgg signer contrat pro pour nga nekk sama manager. waaw léegi agence bi si boppam moom gis na Laurent Mendy bu nekk Sénégal mun na ah, liggéey. Mhm. mu ne ko Laurent dama la bëgg a jël nga liggéeyal ma. Mhm. au lieu man may traité directement ak samay combattant mhm. léegi yow combattant yoo xam ne dañoo nekk Sénégal signé man. waaw yow léegi mun nga di traité directement ak ñoom. wala nekk sama intermédiaire. yow yaa may représenté. ñoom bu ñu amee problème mun nañu wax la ko mu gën a gaaw su ma représentant lañ fi am ah, ñuy li traité bi demba bi fi fi la mujjee ñëw demoon compétition mhm. wala bu mag ah. euh, doon nañ déggante sax mais moo seen combat boobu parce que dégguma si retour si combat boobu ba xam ah. voilà combat amoon victoire am si parce que si la Babacar Niang yi nar a xeex quatrième combat waaw moom la moom la seetaanoon nga combat bi ba. waaw waaw boobu doomu dóor coup bi kii bi quoi. waaw waaw <laughs> waaw voilà donc pour euh, combat boobu noonu. si la ñuy lancé sa Babacar Ndiaye kii Babacar Niang. c'est un jeune de 22 ans. te mun nañ ne Sénégal c'est le plus jeune. et war nañ ko mun a bàyyi xel bu baax a baax. Babacar mooy mais mais nga am Sénégal parce que damay mhm. déglu yenn saa yi. Mhm. mooy bi fi combat bi mu njëkkee mun a am fii Sénégal. Mhm. amoon nag succès bu rëy. Mhm. mais ay détracteur génn quoi ñoo xam ci làmb ji la ne. am na ñoo xam ne aussi tamit. Euh, mhm. ne lii duñ ko accepter Sénégal parce que c'est violent parce que am na sax ñu jàpp ne c'est une menace pour la lutte sénégalaise. Mhm. Euh, ñooñu lan ngeen seex ak yéen ba ñoom mun ñu leen may ngeen xeej ci réew mi maanaam ngeen mën a doxal. ok gars yi du ñu du may ñu doxal parce que MMA tey dafa am doole si àdduna même MMA dafa menacé lépp loo xam ne sport de combat la ba si boxe. soo déggoon ñu naan box is back parce que toll nañ foo xam ne ku dugg si net bi sa MMA ngay jëkk seetaan mais ñooñu du ñu nangu tey MMA implanté wu pour yàq seen activité. Mm-hmm. parce que ñëpp tey ñu ngi daw bëgg a def MMA. lan moo neex si MMA mooy loo munti def yow miy toog. waaw bu la neexee nga xëy ne da nga xeex MMA amul dara nga entraîné pare. lu si neex mooy <laughs> waaw waaw war nga mën a def di otal <laughs> am ci MMA. moo def force bi mais yow. merci mais comme li nga wax nii ah. Uh-huh. Uh-huh. peut moo tax gars yi ragal ko. Uh-huh. mais est-ce que du xaalis bi aussi tamit. parce que dañoo gis ni euh, euh, combat MMA yi. promoteurs yi. Mm-hmm. li ñu ci def ci xaalis dafa bari mais sponsors yi fii Sénégal rek. bi ma gisee affiché presque vingt sponsors yoo xam ne du n'importe qui ah damay mm-hmm. bañ a tudd seen tur. Mm-hmm. moo tax tey jii yeneen discipline yi commencé di jaloux. waaw parce que xaalis bi ñuy dugal ci élément dafa bari. mais foog ñu def euh, benn point d'interrogation foofu. Mm. parce que nit ñi dañ naan MMA am na xaalis am na xaalis mm. mais xaalis bi nu mu demee MMA comme làmb nu mu amee début noonu la MMA amee début. Mm. am na ñoo xam ne ah d'après lu ñu wax. xaw ma ndax nee nañ gars yi ñu fekk ay 100 millions ay 200 millions lu ñu wax. am na combat MMA yoo xam ne ñun ay punkal lañ te duñu fekk ay 200 Bombardier de coup bi mu jëloon Pologne. léegi. force bi force bi su nekk si organisation yi mooy dafa am loo xam ne si côté professionnel dafa am ay bonus. mooy mun nga ñëw. Hmm. ñu fay la un million exemple. Hmm. sa bonus nga def nga jeexal sa combat rapidement. wala nga def benn affaire bu extraordinaire si organisation mag yi nga am benn bonus boo xam ne dix millions vingt millions jëm kaw. voilà li beneen bi mooy ak. partenaire wala sponsor. Ah, léegi yow mun nga ñëw nga sol benn wal fu ne mooy sama sponsor. Ah. man ma yéeg foo xam ne monde bi ñëpp may suivre Amérique fu ne. Mhm. ma sol culotte boo xam ne Walfadjri télévision lañ ci bind. Ah. ma xeex Walf mun na moom jox wéccet bu bëri doole bi fa la nekkee rek waaw fay bi tamit am na organisation yu ëppante doole am na organisation yoo xam ne mhm. duñ la fay dara mais léegi yéen foofu sax si nga kii si organisation léegi yéen li tax boo leen def ay euh, compétition MMA ñu ne am na xaalis ak ay kii yu mu àndal mhm. doo leen doo leen mobiliser comme tele yi mhm. comme Walf bi nga wax nii comme ça ñoom ngeen def ak ñoom partenariat gagnant gagnant nit ñi man koo wane bu baax mu mën a yokk affaire yi tamit. si parce que sponsor aussi boo ko mm-hmm. amee tu es nga mën a dem pour am télé aussi nga fay say say droit ak yëpp pour man a am image yu baax. je crois que c' est bien possible. lenn rek moom Sénégal man dama ne Sénégal du ñu teel a gëstu loo xam ne day teel a ñëw ñu liggéey si tey MMA ku nekk war na si mun a liggéey parce que mm-hmm. franchement économiquement day indi day apporter ay yu bëri mais ñun ñi ñoo ko nanguwul gëstu ñun ñi ñoo gëstu. mais pourquoi pas télé war nañ ko mën a gëstu sponsors yi war nañu mën a ñëw loolu moom moo blocage boo xam ne moom la combattant sénégalais ak combattant africain yi am. Mm-hmm. boo demee dëkk tubaab bi nga gis koo xam ne day teel a may sponsor moom moo koy topp moom moo koy jël moom moo koy aidé muy progresser mais amuñu loolu voilà loolu moom mooy suñu blocage. voilà les gens ne sont pas ak Reug Reug kan moo leen yóbbu woon ak ci turu kan lañ demee woon. waaw bu comme bu ñu bëggee démarcher fii. Mm-hmm. nan lay demee. comme rek comme ñun. nit ki moom mooy xool gis koo xam ne am na ay link international mun na la dugal mu dugal la exemple man ba ma gisee Babacar ñaa ñëw en tant que représentant mais dugal sama sa turandoo Laurent war na dugg de. non Laurent Ndiawo <laughs> war na dugg Laurent gëree la. Laurent daa ah, ah? Laurent. non Laurent daanaan ah, la. non xaw ma nag mais. am na ñoo xam ne danga gis nga MMA commencement bi ngay gis ni mu ne la bëgg naa mais bu ñëwee entraînement benn yoon. <laughs> mais mais mais tamit euh, kii MMA. Euh, amul affaire dopage ak yooyu parce que compétition yi aussi day mm. métteeg yooyu gars yi duñ ci trouvé affaire dopage. waaw mais tey évolué nañ ci côté boobu noonu. Mm. parce que dañuy def ay tests ay tests sanguin ak lépp soo demee. mais fii saa euh, gis nga làmb ji dinañ def. mais bu commencé woon nañ ko ci Aliou Sarr mais ah, moom ah, lépp loo xam ne sport la. sport parce que. mais est-ce que <laughs> discipline olympique la MMA. waaw léegi côté dopage boo xoolee ñoo xam ne dañu nekk ci comité olympique mm-hmm. mooy sport yu nekk ci comité olympique taekwondo ak yooyu noonu mm-hmm. parce que soo xoolee côté olympisme créé nañu loo xam ne mooy code côté anti dopage ak ah. yooyu noonu yëpp ñu ngi koy xeex ah. ba créé loo xam ne moom mooy tribunal arbitral international mm. comme ñooñu évolué nañ mais dañu bàyyi benn côté mooy sport de combat dañ ko banaliser un mm. mooy tey dañuy waxtaan koo xam ne sax day def karaté sax. Mhm. Sénégal sax mun na di doppewu te duñ ko xam. duñ ko xam effectivement. waaw parce ban contrôle lam fii. Ah, peut-être bu demee rek international dañ jàpp. Mhm. parce bu demee compétition internationale moom ñu daj ko mais mun nga nekk fii si dëkk bi sax di xeex sax di doppewu te ko xam xam nga lu tax. fédération yi ñu ngi organiser. gars di ñëw doom contrôle doom dara. amul assurance amul dara. effectivement voilà dugg si détail yooyu mais a beaucoup de choses à dire. au Sénégal yoo xam boo doppeewoo mën ngaa doon nit da ngay dëggal ni gars yi day dopp am na ñuy doppeewu di ko nëbb ah mm. mais sport yu ma xam mm. mais nit day ñëw doomu contrôle du am dara mu ñëw xeex ñib loolu a xamee dafa doppeewu même arts martiaux yi rawatina lamb bi voilà lamb bi dañoo bari lu ñuy guux lool dekk dekk yëngal ku teel lekk waaw laay naan la bu teel bu mu jubal te lamb mais yooyu mais loolu war nañ ko jox beaucoup plus de sérieux pour ñu mën a xam kii war nañu càmbaraat lamb waaw lamb moom gars nag moo fi manqué contrôle moo fi manqué pour euh, pour pour leeral ñun dañu tardé ci sport dañu nekk sport dafa dox cinquante ans ñun ñu commencé te gars lu ñuy lu ñuy daw ñun raamuñu ko. Eh, mais defal na mais mais <laughs> industrie la quoi. mais mais tey mais tey mais mais tey c'est que man li ma jaaxal mooy hmm. euh, yéen ñi nga xam ni ñoom ngeen di encadre hmm. nga xam ni ay professionnels lañ. parce que hmm. ñun bi ñuy soog a dégg MMA ba may soog a dégg fii ci dëkk bi nii. dama defe woon ni ngande yi sax. mooy ay ñoom bëmbër jéeg ñoom kiiw ak yooyu. ndekete ñu xuusmaa ñàpp yi lañ. waaw loolu nu mu demee noonu lu tax ñi nga xamante ni bii tey. Mhm. ñooy professionnel yooyu comme booy yooyu nga xamante ni moom ngay ñooñ ngay wax. Mhm. pub bi. Mhm. ni mu war a demee demeewu ko. ok pub bi nekk na si loo xam ne lu may njëkk a wax. mooy sénégalais yéenewul moroomu sénégalais ñu baal ma si wax bi. sénégalais yéenewul moroomu sénégalais. gis nga di nga nekk fenn sax. di évolué ay nit yu la war a mun a jàppale jege la sax. mais duñ la jàppale. ku si mel ni tey Demba Seck. mu ngi fii teg na ay pas yoo xam ne mënuñu ko xam mhm. seeti na ay nit gis na ay pungal fu mu dëkk ak fu ne mhm. mais amul koo xam ne def na si pas mais tey soo kuy seetaan MMA xam nga dem ba Seck parce que il fait des combats extraordinaires mhm. léegi ñun lenn rek la ñu mun a am mooy xam nañ lenn ñun am nañ organisation boo xam ne dëgër na on a des coachs yoo xam ne son des coachs à louer ku si mel nii coach Isabelle Sambo war ngeen ko xam si côté lutte lutte elle a été plus de neuf fois championne d'Afrique kooku icône la. Mhm. xam nga maa ngi naan Isabelle Samb kooku normal moo waroon wax turam rek ñëpp xam ko. waaw gis nga voilà ku si mel ni ay Anta Samb la championne d'Afrique en titre en lutte. Mhm. lutte libre ñam safeetu ñu nekk ay jigéen yoo xam ne ñun dañ leen jàppee comme ay coach ñoo xam ne dañuy aider. Mhm. parce que ñun noonu lañuy liggéeye bu ñu demee gis koo xam ne peut-être le maître papuy koo xam ne c'est un pro moom yàkkamtiwul dara. moom day jël temps bu dee dóor nga coup bu baaxul bu la neexee ngeen fanaan fa. mais di nga def ba coup bi baax. Mm-hmm. comme ñooñu quoi. voilà voilà di de passage euh, di dire merci à Christophe Adat koo xam ne waa àll nañu saal quoi pour ñuy entraîner. Mm-hmm. te fayuñu si dara te foog naa ne ñeneen ñu bëri waroon nañu mun a def loolu. tamit jàpp foofu li ma li ma si kii mooy man d'après pour man les armations yooyu ñuy organiser ñëpp. des fois dañ doon def li li war tamit si xam nga di def dugal dara mu mu indiwaat dara. Mm-hmm. pour nit ñi xam la pour ñu xam euh, euh, Demba Seck wala keneen wala même si si armation bi. Euh, boo bëggee boo bëggee li ngay def am am pub bu baax fa nga dem si média yi hmm. mais média fi ma ne bu ñu organiser nit ñi ñu ñooy dem récupérer tuuti ñëw teg sans dara xam nga loolu da télé bi da la ko defal noonu hmm. mais ñoom ñoo war organisation yi ñoo war a woo tamit am lu ñu si table bi parce que armage yo na toll foo xamante ni day am ay sponsor ñoom seen biir ñuy sponsor seen bopp fédération yi def effort ñu boo amee événement nii des armage yo war a dara comme boo ñëwee gis euh, solution TV hmm. ñu defal tegal si kii ba pare ba pare yow invité la nga ñëw feeñal say affaire li nga bëgg wane nga wane ko mais dañ effort boobu lañ dul def. des mais est ce que xam na ah. li mu joon am fii à Dakar. Mhm. woon nañ ko mais télévision yi ak droit ci woon jot télévision française yi. Mhm. ñoo ko gënoon a. xam na léegi foofu problème bi lenn la rek ah. mooy lu ma wax sànq ñu bàyyi si xel bu baax a baax. mooy la nit ñi dañu nekk di investir sport te Sénégal nanguñu investir si sport. Mhm. dafa bëri structure privée koo xam ne day yor ay milliards jël ko dugal ko ci sport. tey kooku moom mun a ñëw tëgg leen lu ndaw ne ah sama mbokk waa Walfadjri teg naa li ci table bi ñëw leen couvrir. ci loolu dañuy woo ñoo xam ne ñu ngi fii ñu ngi ci dëkk bi ay punkal lañ même nga nekk ci beneen sport mais nga gis ne war nga ci mun a jàpp nga jàpp si ñoo xam ne tamit ñu ngi génn muy ñoom peut-être bombardier Reug Reug ñoom link feneen ñu jàppale ñoo xam ne ñoom ñoo fi nekk. ñun nga xam ne peut-être ay représentants lañ fi tamit. suñu gisee ay buntu ñu ubbil ñeneen ñoo xam ne ay combattants lañ ñu dem xeexi affaire yi noonu lay yokkee ñu bañ ko tëj franchement ñu ubbi ko daal. mu gën a rafet. mais mais mais gis naa ne aussi tamit MMA li tax aussi ni ngeen wax ci sport yi dina comme box is back li war a indiwaat affaire yi mooy xale yi tamit bokkuñu si mooy te arts martiaux ñooy xale yi ñuy jóg ñuy compétir jóg est-ce que am na MMA am na compétition xale wala benn benn âge nga mën a amee pour mën see bopp. boo xoolee compétition MMA sax doo ko fi nangu dégg mooy lu ma wax si njëlbeel bi. Ah. man boog gisaguma kéet. Ah. bu may woon ne MMA nangu nañ ko fii biir. Sénégal ah. mais nag ñun ñoo ngi làkkatu waaw ñun ñoo ngi def làkkatu def MMA. voilà tey mun nga organiser sa tey ñu ñëw. indil la problème voilà voilà ay ah. nit gaañ ay nit blessé. Ah, blessure yi moom mi ngi fépp. xam nga parle xam nga bu nga dox sax faqasal loolu yëfi nit la. lu jéggi dayoo am ci. waaw boobaa sa responsabilité. waaw côté boobu fu ma bëggoon ñëw sax moo tax ma ne la blessure mi ngi fépp sax. juste pour wax la côté boobu noonu côté sécurité ñoo xam ne ñooy combattant yi. Hmm. fédération yi ko fi respecté dañ leen di compter. Ah, loolu foog ñu wax ko mu leer. amuñu assurance amuñu dara assurance. du ma ne discipline yëpp de mais discipline yu bëri. nañu ñëw ñu wane seen assurance ñu gis ko wala ñu génnee police d' assurance bi xam nga am naa xaalis mi ngi banque ba dafa neex de. ah trop kii voilà day génne kii boo xam ne. muy def ay révélation yi am solo rek. en tout cas waxtaan bi am na solo. waaw waaw soo daan waaw dama ci bëggoon yokk. ñu bàyyi la non dama la xool rek ndax ñiy def MMA moom mën nañoo. dinañ dinañ faral di xeex si mbedd mi dinañ mën a dékku gars yi si mbedd mi comme agression yi ni mu baree si dëkk beeg yooyu ko. noonu tamit mun na nekk mais toujours armation dafa yaatu. am na côté boo xam ne côté self défense wala foofu noonu dina la jàngal nit bu jëlee jaas nga def nii ak nii nekkul tamit MMA laay def rek mën naa lépp xam naa lépp. Mm-hmm. parce que sa àdduna yëpp da ngay jàng comme ni nga ko waxee rek. monde armation tamit humilité la. kuy def armation tamit kii euh, MMA tamit humilité bu jàppee ne dafa xam lépp rek mi ngi nax boppam xamul lépp voilà il appelé à chercher <laughs> aussi dans d'autres domaines ah, en tout cas di leen remercier par rapport à l'invitation foog naa ne mënuñu woon wax yëpp am na détails yoo xam ne mhm. du ma si dugg ah, mais yàlla baax na avec le temps foog naa ne war nañ ko mën a leeral si Sénégal voilà parce que sport tamit suñu nee dafay dox nekkul dañuy nekk di critiquer état kese mhm. am ñu ngi si fédération yi ñu ngi si yenn mais foog ñu wax ko dafa métti liggéeyuñu jàppale ñu nit ñi. benn instant dafa mel ni fédération yu bëri ay mafia la te loolu noonu war na fi jeex on doit avoir un changement voilà aussi di wax képp koo xam ne mun nga jàppale suñu professionnel yu fi nekk tamit ngeen jàppale leen. ak nu mu munti demee parce que jàppale du xaalis kese. voilà di tàggu aussi suñu maman yoo xam ne ñu ngi jàppale bu baax. ñooñu bëgg naa wax seen tur. ku si mel ni euh, maire Soxna Sané maman Daba maman Florence voilà ñeneen Christophe Adat maître Pouy Julien Scal en tout cas maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy waaw Betty Brix aussi <laughs> borom faat agence yi mënu ma ko fàtte. waaw Betty waaw Betty di di di kontaan loolu aussi di wax ñuy def arts ak ñëpp aussi bu ñoom aussi ñuy def effort. bu ñu bëggee def publicité aussi ñuy ñuy ñuy def waaye communication ñuy def aussi tamit comme léegi corona bi jeex na événement yaa ngi commencé même ñun sax dañuy dinañ def mais ñu bëgg gars mettre le prix parce que pour ñu wane la aussi tamit dafay def loolu mooy tax affaire yi di avancé te c'est mm. normal aussi ñu def ko pour pour affaire comme tey jii yow nit am benn programme war na la mën a consulter ñu wax ñaata la mën a def même bu ñu lu bari lu symbolique loo xam ne c'est de la outil boobu laa am. comme ça bu ñu amee ñëw wax ak ñoom bu ñu leen waree mën a direct par chaîne ñu wan leen. invité leen après voilà léegi ñu am benn somme boo xam te day ko mhm. parce que loolu mooy normal effectivement continuer quoi bu dul loolu mënut a continuer effectivement fa ngay defee en tout cas Laurent ñu ngi lay remercier tout début est difficile mais ñu ngi lay encourager yal na yàlla teg ci carrière bi loxo